ba Sénégal ak. lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk yu tegal ay camion daal di gaare fi nga xamante ni moo di ci frontière Sénégal ak Gambie moo xam poste Caraïbes wala sax fi nga xamante ni moo di poste Senaba fay seeni oto la ñu def xëcc seen frein amee na lànk kandaari ne du ñu dem fenn lu dul ñu teggi taxi yi nga xamante moom lañ teg ci seen kaw. transporteurs yi nga xamante ni ñoo yor camion yi yëpp marchandise di dem fi nga xamante ni moo di Casamance wala ñu koy moo di Guinée ginnaaw bi nga xamante ni nag waa gam bi jël nañu am ndogal ne taxe yi nga xamante moom lañ daan fay daal dinañ ko daal di yokku yóbbu ko ba fi nga xamante ni moo di 16000 francs loo xamante ni amul benn tàggoo amul benn waxtaan. loolee nag naqadi woon leen lool ba daal di tax daal ñu gaaree fi nga xamante moo di seen wute na ñoom ñii nag duñ dem fenn tànk loole nag teggiwuñ ko si seen i kaw ba tax na nag ñi nga xamante ni ñoo yor wàllum transport fii ci réew mi di Sénégal di ki nga xamante ni moo ak xamante ni moo di Serigne Gueye Diop mu yor wàllum jënd ak jaay ministre commerce daal di wutaloon fi nga xamante ni moo di si Gambie le 13 août bi nga xamante ni ci la ñu génn 2024 bi ñu demee nag dajee nañ ak ñi nga xamante ni ñooy ministre bi yor wàllum transport foofu sa Gàmbi ak ministre bi yor wàllum commerce foofu sa Gàmbi tamit ñu daal di amal li nga xamante ni moo di waxtaan waxtaan ba daal di déggoo si kawi kàddu loolee nag mën nañ ne juróoloon li nga xamante ni moo di transport foofu sa Gàmbi si diwaanu si euh, Gàmbi ak Sénégal frontière bi maanaam xatoon xat goo xat goo xamante ni ba jéggi dayo lool maanaam pour nga jàll fa sax problème la woon ñenn gis noonu li nga xamante ni moo di camion yi ak seen taxawaay bëri bëriwaay goo xamante ni mën nañ ñett ñett téeméer yi ñu wax sax am naa yaakaar ne mën na ko képp la gi nga xamante ni moo nekk si côté kër ayib bi bi nga xamante ni moo nekk sax fi nga xamante ni moo di si poste ba moom it nii la guddam rangam gi guddee waaye mën nañ ne nag mën nañ ne war nañoo mën a commencé def li nga xamante ni moo di jàll ginnaaw bi wax waxtaan amee ba daal di déggoo daal di am li nga xamante ni nag moo di Dakar dem dikk yi ñoom tamit nag mën nañ ne ñu doon fay lu toll si cent dix mille francs mën nañ ñi nga xamante ñoo di waa Gambie kon wàññi nañ taxi boobee ba mu tolloog su cent trois mille nekk nag mboqus boo xamante ni nag bu am am solo la. camion yooyu tamit mën nañ ne ñu doon fay li nga xamante ni moo di cinq mille francs si fukki fan yu nekk léegi nag yokk nañ ko par trente jours lañ koy daal di fay maanaam mu nekk mboqus goo xamante ni moom tamit nag bu neex a neex lay doon. loolee nag mën nañ ne moo am si diggante li nga xamante moo di senegal ak Gambie kon mbokki internet yi ñu ànd seetaanandoo vidéo yi ba mu jeex ngeen gis li nga xamante ni moo di camion yi bëriwaay bi nga xamante ni bëri nañ ko si frontière bi. Buzz Sénégal Actu